ci wàccaayu màggalu daaru salaam édition 2024 bi sëriñ maam Cheikh Mbacke Sidi amal na ñeenteelu édition journée de consultation médical gratuite yi nga xam ni mu ngi koy amal fii ci daaru salaam ngir taxaw askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi yeewoo ak li ko wër saytu seeni wér-gi-yaram lépp di tàbbi ci wàccaayu màggaluk maam Cheikh Anta Mbacke gi. santé daa tumurang ci Sénégal ñu bëri bëgg nañu faju waaye mënuñoo faju ku ne am foo daw jëm na muy naa daw jëm man ci fexe ba nit ñi maanaam di am wér yaram muy dox di sonn ci lu muy dajalee mboolem médecin yeeg ku ne ak fa nga maanaam maanaam qualifié mu woole nga ñëw ñi ci wàllu bët ñi ci wàllu nangam ñu ñëw ngir askan wi nga xam ne ku ne xam ne Touba li fi gën a tuumalaan gën fay jeex mooy fa wàllu faj bëgg liggéey sëñ Touba ci wàllu woowu ak si ngaawaan mi nga xam mooy maam di turandoom nit ñëpp gën a mën a faju mën a gën a yëgaat seen santement ci wàllu seen sentir ak sante ci wàllu yaram di ko gën ko sentir te loolu ku ne xam ne mbooloo mi ñëw tey da leer di ëpp nañ junni junni te ñu ngi bàyyee ko Touba bi rek ñi ñi nekk ngi woote fu nekk ñi sax ñooy woote njaareem ngir bëgg a ñëw tey jii bëgg a faj kon loolu sens boobu ci la tegee maanaam xalaat bi ba réalisé ana ko ay mbokkam yi nga xam ñoom koo gis mu jóg am najaax ay mbokkam ma ko jàppale ñoom ñoo ko jàppale maanaam ba mu taxaw taxawaay bi nga xam ni ku ne xam ne maga Daaru Salaam li ëpp solo bokk na ci ginnaaw ber na yeeg maanaam alxuraan ji wér gi yaram da wérul doo tal ñëw màggal doo tal def dara dootal siyaara sëñ bi dootal maanaam def dara ci màggal gi mu ne ko naagatandoo bi si màggal gi ci wàllu faj mooy lu am solo seen soxna bu nee nag ginnaaw jàng karim li gën a baax ci li nit di yëngu mooy am faj journée de consultation médical gratuite bi Serigne Mame Cheikh Mbacké Sidi da cee lëkkaloog Touba assistance médical Marie Stop Sénégal ak yeneen i médecin ak poste de santé bi nga xam ne moo nekkee ci daaxu Salaam ci organisation bu mucc ayib mbooloo mi bàyyeekoo fu ne ngir ñëw ñu seetal leen seeni yaram Euh, sant tamit si organisation bi euh, donc euh, atum ren bi dañoo gis ni médecins yi dañoo yokk macha allah donc malade tamit gis nañ ni mbooloo mi am na solo lool donc am nañ yaakaar ni vraiment lan daan def daaw amoon nañ 600 malades. ren am nañ yaakaar ni dina ko dina ko romb allah. bi ñu demee ba ngoon lu toll ci juróom-ñaar téeméeri nit ak fukk ak benn jot nañoo saytu seen wér-gu-yaram ci lim bi juróom fukk yi ay jigéen lañ yoo xamante ni jot nañ leen defal échographie juróom-ñaar fukk ak benn yoo xam ni ay gone lañ. ñeent fukk ak ñeent yoo xam ne jot nañoo saytu seeni bëñ juróom-ñaar fukk ak benn yu amoon jafe-jafe ci ay bët ñoom it taxaw nañ leen ñeent fukk ci ñoo xam ne dañoo amee feebaru dënn ak lu jëm ci wàllum nooyi fukk ak juróom-ñaar jëm ci ñi nga xam ne dañu amee feebaru biir wala lu jëm ci wàllum reesal ñam ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett yoo xamante nii jot nañoo jaar ci médecine générale bi. Euh, xam nga bis bi yàlla def na ni peut-être expérience am na ci ndax ren mooy donc euh, zone bi miin nañ ko ndax fii la ñuy liggéeyee donc feebar yi ñuy faral di rencontrer ci zone bi moom nañ fi faral di gis ah hypertension diabète donc problème estomac problème mu bët yi donc euh, yenn trauma yu ndaw yi peut-être yooyu nañ fi gën a rencontrer donc ñu ngi koy gis te vraiment ku fi consulter également di la da may garab ci kàttanu yàlla. muy ay garab yoo xam ne jot nañ koo may képp koo xam ne jot nañoo saytu sa wér-gu-yaram ba bindal la ordonnance moo taxoon ñu indi fii ay limub garab yu takku lool lu ëpp ñaar fukki médecin yoo xamante ni jot nañ leen indi ci spécialité yu wuute kenn ko ci nekk taxaw askan wi ba jàngoro ji nga xam ne moom nga fi indi ñu taxaw la ci teg la ci yoon woo xam ne mën naa saafarawu waaw ah, médecin yi moom ëpp nañ ñaar fukki médecin ah, ci ay spécialiste ak Euh, ay généraliste léegi dañu jéem wax daal si contrôle suñu MCC MCD mooy docteur Adama dara si ndigalam lañuy waxee nag ndaxte journée yi moom bi mooy quatrième édition bi édition bu ñëw rek malade day gën a bari ndax actuellement nii rek daanaka de d'attente bi rek mat na 500 te ñoo ngi si ay presque cent et quelques kon année bu nekk mën nañu wax ne daal nombre bi day gën a yokk rek vraiment it kon day baax nag ministère de la santé action social di jàpp si journée yu mel nii ndax ku wax Daaru Salaam wax dëkk Maam Cheikh Anta ndax wax wax wax tamit euh, mobilisation bi ndax boobu ba léegi rek yaa ngi gis nit ñaa ngi ñëw du ko dugaguma dugaguma dugaguma kon journée yu mel nii daal macha allah day baax lool ñu appuyer ko si côté médicament si côté yëpp rek. mboolem askan wi nag sant nañ bu baax a baax sëriñ maam Cheikh Mbacke Sidi ci ni nga xam ne at mu jot noonu lay taxawoo askan wi ci wàllu wér-gu-yaram bu ñuy waajal màggalug Daaru Salaam gi te it ñu jëf ji. état daf ci waroon di jàpp bu baax a baax. xanaa kontaan ci loolu rek ndax sama maam suñu seex maam maam seex laa koy woo moom laa woo bu ma déggee fa publicité bi laa ko woo bi ma ko woo bu ma xëy si bi ma xëy si itam bi ma dikkee toog ah oftal si laa jëmoon ba ma demee gars yi gars yi seet nañ ma gauche ak droite appareil ci machine bi yëpp bindal ma ordonnance bindal ma benn rajo maa ngi sant bu baax santaan di kontaan ndax eh, lii lu am solo la ndax eh, dafa baax ci am réew ndax réew mi dafa am fu mu kon nag su fekkente ni ñuy def lu mel noonu ñu ngi dimbale njaboot ci ñu ngi jàppale njaboot ci. lii dañ ciy sant euh, maam Cheikh bu baax ndax bu defee lu mel nii ñun la ko defal ndax ñun askan wi ñu ci bari bëgg nañoo faju ñu ci bari bëgg nañoo faju mais seen doole demewul noonu ndax te doole bi demewul noonu kon nag ñun bàjjenu gox yi. la ko defal am nañ ci mbégte di ko sant moom it bu baax a baax. sëriñ maam Cheikh Mbacke Seydi sant na bu baax a baax mboolem partenaire yi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi ak mbokki boppam yi nga xamante nii kenn ku ci nekk ñëw na ànd ak moom bis bi ngir jàpp ci bu baax a baax. aussi ma remercier suñu partenaires yi ku ci mel ni euh, Touba Assistance Médicale Marie Stop ak parrain bis bi docteur sourant euh, bu hôpital Cheikh Khadim moom mooy parrain bis bi. vraiment gis nañ participation bu am solo hôpital Cheikhoul Khadim si ay médecins donc médecins yi ñu si ëpp hôpital Cheikhoul Khadim lañ loolu aussi vraiment dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy bu baax. liggéey bu am solo boo xam ne moo ne mu ngi sant baayam si Sidi mi nga xam ne mooy waajuram xam moo ko jàngal yar ko xamal ko maanaam solo taxaw ci nit ñi pour ñu am santé bu baax mooy ngi ñaan a baax waajuram boobu mu yàlla yàlla yàgg fi te ko. ñaanal maam si Ebo Mouhamad mi xam mooy xef si biir maamul yàlla gën ko dëggal gën ko sàmm ba li mu yéene liggéey si biir maamul lépp ànd ko ak mboolem njaboot si ngaawaan bi yëpp sant baax docteur Soura da jàpp na ci baax a baax a baax ma madame Mbacke ak mbooleem ñi nga xam ñoo jàpp bi ne bayul kenn sant baax na seen daara yi nga xam ni seen ndonga macha allah ñëw nañ te ku ne xam ne doomi daara la ndax baayam seen daara la waaye sëriñ la maam noonu ba ci mu yi ma toogal ñëpp kenn ku ne la nga daara macha allah taala su weesoo journée de consultation médical gratuite yi nga xam ni sëriñ maam Cheikh Mbacke di mi ngi koy amal fii ci Daaru Salaam ci wàccaayu màggal gi moom bokk na ci ay activités yoo xamante ni mi ngi koy amal ci biir at mi lépp jëm ci wàllum solidarité maanaam jàppale askan wi nga xam ne dañoo néew doole te seen loxo jotul seeni ginnaaw ci loo xam ne dañu koy woo